ma islam bi Sénégal yëpp xam nañ ko waaye bitim réew itam ñëpp xam nañ ko ndax dafa nekkoon nit yàlla bu doy waar suñu borom bind ko jël mbóotam def ko ci moom ndax suñu borom moom moo ne maay def lu ma soob ci alal xibaadi kamaa yasaaw mooy def si jaam bi lu ko soob nam ko soobee mu defee ko noonu sëñ san salaan nag coobare suñu borom la buñ la doon laaj tey moo ko nee la waaye yaxlaw maa la tax la moon bis boobu nag dañ cee bëgg a fësal jëmm jooju yàlla teraanga suñu borom la dara tëwu ko yamul tàmbaliwul fen te yamul fen loolu na koy xamee ci biir Seydina Assane salaam moo tax ñu jàpp bis boobu ba mu fi jógee ba léegi ñu koy def ren ji mooy trentième édition bis ba génn lu dul wax nit ñi la mooy la moo tax yàlla bind leen ni ko suñu borom waxee rek amaa xalatu jinn wala ins ilaa li yaxbuduni yàlla dafa bind doomu aadama yi ngir ñu jaamu ko moo tax indi leen kaw suuf Sëriñ Assane nag day xettali nit ñi ci ñu xam yàlla mi leen bind la moo tax leen da leen koy fàttaliwaat képp ku ñëw ci bis bay nga fekk programme bis ba moo tàmbali tey jii rek di gën ko yaatal ndax ni ma ko waxee rek umma islam yëpp ñoo ko bokk kon ñun ñun njabootam ameel nañ umma islam rawat na Sénégal ameel nañ leen bor bu ñu la war a fay bor bi mooy dañoo war a fexe ñun ni ñu xamee Sëñ Assane Salam waa Sénégal xamee noonu Sëñ Assane Salam moo waral tey ji ñu jël fii bërëb bii nga xam ne ñu ko ñimee bëriwut waaye lu mu laaj ci moyen wala mu laaj ko ci doole wala ci kàttan wala ci ñaq danañ ko def ngir rek bëgg Sénégal xam jëmm ji mooy kan ngir ku ko xam sag ragal yàlla day daal di mat sëkk sag liimaan day daal di mat sëkk sag taqwa day daal di mat sëkk sag jub ak ragal yàlla say waajur ak say sëriñ kenn dootu sonn moo waral ñu sonn ci pour xamle seen asan salaam bés ba nañ koy defee mooy bu ñu xëyee dañuy jàng alxuraan karim ndax ku ne xamoon ni mu fonkee alxuraan karim waaye tamit bu ñu jàngee ba jàng xatmu bi sëriñ Saliou Salaam jàng ko wala ku mu jox ndigal dañuy daal di euh, woo mbokk julli ñi nga xam mbokk taalib yi nga xam ne dañuy jàng xasida ñu durus ba suba gi ba guddi nañ saxeen dajal tamit mbokk mag ñi nga xam ne daanañ jataay ak moom comme ni nga ko gisee léegi rek dina ñu témoin ci moom wax fi mu jaar ak ñoom ndax képp ku wax Seydina Asan Salaam rek boo ko digloo boo fa jugee di nga tal leen loolu mooy suñu borom